ngëneel ci loxo yàlla la nekk ku bëgg a gën eh, eh, toppal yàlla rek jubal eh, ragalal yàlla bu boobaa yàlla tànn la comme ni mu tànnee ay jaamam yi nga xam ne ay jaamam rek lañ waaye fi ñu amee liñ am yëpp mooy topp ndigalam bàyyi tereem te ñi gën a gën ci jaam yooyu nag ñooy ñi gën a toroxlu ci ñoom kenn ootewu ci ne maa gën nit ñi <coughs> ku ci wax sa ngëneel da koy wax ngir sant yàlla ak loo xam ne yàllaa la ko xamal nga wax ko ngir ubbi buntu nit ko war a jëriñu jëriñu ci sa loxo waaye koo ci fekk rek boo ko toppee da ko déggaat muy suufeel boppam di wax ne jaam boo xam ne nii mënul dara amul dara kooku nag maa ko bëgg wala maa ko topp jarul tas am réew maa bëgg suma sëriñ jarul tas réew maa bëgg suma waajur jarul tas réew nit bëgg sa sëriñ loolu lu war a xam la waaye bokk na ci bëgg sa sëriñ nga respecté sëriñ yi jàmbur bëgg sa sëriñ mooy nga dem ku bëgg sa waajur doo saaga kenn ndax ragal nga ku la saaga waajur ku la saaga sa waajur ñu bëgg seen waajur dëgg ku leen saagoo ñi xam ku bëgg sa sëriñ tim dool saaga wul saaga sëriñi kenn ndax koo saaga sa sëriñam mu saaga sa sëriñ yow yaa saagalu sa sëriñ bokkut ci bëgg sa sëriñ bëgg sa sëriñ mooy nga topp aw yoonam rek waaw ay maa bëgg sama sëriñ sax euh, bu nekk aji bëgg bu demee ba xaalam not ko ba mu wax ne maa bëgg sama sëriñ dañ koy jox ngant ci loolu rek ngir xaalam moo ko na dafa ñàkk doole rek di wax loolu waaye maa bëgg sama sëriñ saa jarta wax maa fonk sama sëriñ jarta sama sëriñ ma jër gënal sëriñi jàmbur jarta wax naka noonu sëriñi jàmbur bi moo jàmbur boobu sëriñam bi moo gënal sa sëriñ sama baay ma gënal bàyyi jàmbur kenn du la ci sikk sama sëriñ ma gënal sëriñi jàmbur kenn duma ma ci sikk waaye jarta wax jarta indi ay xuloo jarta indi ay saaga jarut di saaga nit nañ delluwaat ci yoon yi nga xam ne nii mag ñi moom la ñuy jàngal sëriñ yi ñuy wax yëpp ñoom ñëpp ay jaam yàlla lañ ku ci gën a baax daal mooy ku la gën a topp yàlla gën laa nangu ne jaamam yàlla la te seen ak mbaax atte ko yàlla sant la ko yow yow li yow bu fekkee da ngaa bëgg a jub seetal ku la mën jubal nga topp ko loolu rek moo mooy sa droit waaye xas sëriñ nit du droit yi kenn kenn amu ci droit te mag ñi liñ fi nekkoon dañoo wegante woon ku nekk jox sa mbokk Euh, cër bi nga xam ne nii moom la xeeyoo ndax sëriñ si dañuy wax ne kenn nit ñu baax ñi dañuy wax ne laa laa ariful fadla li ahlil fadli illa zawu kenn kenn xamut ngëneel <coughs> ci ñooñ ngëneel lu may lu may ñooñ ngëneel rek ñoo xam borom mi ngëneel nettal naa la léegi lii yonent bi sallallahu alayhi wasallam feeñal ci euh, euh, ngëneel ak Abu Sufyaan di ko teral loolu yëpp ngëneel rek lay feeñal bëgg sa sëriñ daal ku nekk am nga ci droit waaye niñ koy wéralee mooy nañ topp seen yoon yow sa sëriñ masta saaga nit bul saaga nit sa sëriñ dóorul nit bul bul dóor nit bàyyi de moom dafa ne laa tadribu abadan laa tashtimu abadan fa in duribtum fa sabran innakum subaru bu leen saaga bu leen dóor buñ leen dooree sax ngeen muñ ndax yéen ay muñ kër ngeen loolu sa kuy taale baay loolu la sa sëriñ wax kuy taalibe keneen it sëriñam wax na ko leneen dégg nga in kaana cheikhukumu fi ra'yikum qamaran fa inna cheikhahumu fi ra'yihim qamar kilahuma nadirun fi aynihi qamarun wa batinul amri inda allahi mustatir bu fekkee sa sëriñ yow da jàpp ne sa sëriñ moom mooy weer bi leeral weer eh, addina bi yëpp keneen tim jàpp ne ne addina sax amul moom sëriñam rek moom moo am dégg nga ku nekk mu gis weer ci eh, kanamam batin amri bi ci yàlla la nekk nañ jub nañ jubee njub ak nañ jubee njub ak sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nañ jubee njub ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ eh, nañ nañ nañ nañ sàmm mbokk gi nañ sàmm réew mi nañ sàmm jàmm ji nga xam ne nii ñu ngi ko am ñun ci suñ biir ndax jàmm ji ñu am ñi xeeb ko nga xam ne dara mayewu ko lu may xormalante bi ku nekk nga wàccee ko wàccuwaayam jox sa morom uh, sa wàccuwaay sax bi nga jàpp ne yow moom nga xeeyoo jox ko sa morom ndax loolu mooy lislaam laa yuminu ahadukum hatta yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsihi la yonent bi sallallahu alayhi wa wax kenn ci yéen du gëm lu may batam ba mu bëggalee mbokkam lim bëggal boppam li ñuy wax ci sa sëriñ mu neex lay yëpp buñ ko waxee ci sëriñi jàmbur na la neex ndax jàppal ne yow nii la neexee ci sa sëriñ nuñ ko waxee ci sëriñi jàmbur yow lu ci yàq sa sa sa may Cheikh Ibrahima radiallahu anhu dafa waxoon man de yàlla may na ma loo xam ne góor yàlla yu bëri mébétoon nañ ko mooy annii la ahsudu ahadan man duma xañaane kenn li annii la anzuru illa ila muradillahi man yàlla may na ma loo xam ne góor yàlla yu bari mébétoon nañ ko mooy na xañaane wu ma kenn lu may xool rek mooy li nga xam ne mooy nammeel ak yàlla lu def rek ma xam ne lii mooy nammeelam kuntu raadiyan mustarihal baali ma nekk ku gërëm suma xol teey ci loolu ebut foofu de te wax na ne war na ci képp koo xam ne yaa ngi juble ci yoon wi ma nekk nga jéem maarooy ci jikko yooyu nañ jël loolu nañ sàmm loolu nañ bàyyi eh, xiiro bi ak ngaayo bi eh, eh, saaga du def ku tilimut mu tilim ŋàññi du tax ku ŋàññiwut mu ŋàññi bëgg sa sëriñ laajut xas taalibeeb kenn rawatina xas sëriñeeb jàmbur wala di ko laal yàlla nañ yàlla jubal yal nañu yàlla jubal yàlla na jubal